saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah dañ ak réer mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli seen mbokk Alioune moo fas yéene waxantaan ngeen ñaari kàddu ak ñett jàpp ñeent alhamdulilah mbokk yi yéen ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ci bitim réew feebar ak boo xam ne borom xam-xam yi nga xam ne li seen xam-xam mi ngi màcc jëm ci moom wala màcc jëm ci wér-gu-yaram ku leen ci déglu topp yi nga xam ne moom la ñuy déglee bu feebar yaato yaatoo it mën naa xat bu feebar bi nekk it mën naa dem ndax wolof day wax ne fegu moo gën faju fegu gi nag du du man maay fegu rek man su may génn te bàyyi sama gémmiñ nii bàyyi sama yaram nii bàyyi sama lépp nii mooy man mën naa jëlee feebar bi sama kër yóbbu ko ci mbedd mi te su boobaa maa ngi lor waa mbedd mi du ma fegu pour nen na ma ko kii jox déedéet man damay jàpp ne man mii maa ko yor du ma ko jox kenn ndax jox nit feebar bi mu jóge ca tëdd jóge ca loru ca yàlla tere jóge ca leneen loola conscience yu nit ki du du tranquille mukk rawatina ba demee ba jëm ci mag kon li may dénk sama bopp di ko dénk ñëpp mooy fegu fagaru faju tey ñaan lu ko fi jëli fegug gi mooy masque yi ñu wax nañ koy def raxas bi ñu wax nañ koy def gel bi ñu wax nañ koy def toog bi ñu waxit nañ koy def ku am yitte ba bëgg koo doxi te mënu ko ñàkk doxi demal ko doxi ku te ñëw waaye ne ci mbedd meeg yooyu day tax feebar bi di tuxu ci ñun waxoon naa ci jotaay yi weesu ne feebar bi dafa yeewu waaye amul paas du jël taxi du dugg kalandoo waaye fu muy dem nit ñu yomb ko li muy wax day taxaw sa buntu kër wala sa buntu néeg ne la damaa bëgg dem ci la ma xam mbaakool su fekkoon dangaa raxasu fi nga koy bàyyi mu meeral la nga mere ko ku ne dem waaye soo raxasuwut waajaloo ko defoo solo masque booy dem ci la ma xam mbaakool ko ci la ma boo dugg jox leen ko nañ bàyyi xel ci loolu jërë ngeen jëf ñaan gi mooy sunu borom noo ngi ni ñun ñëpp di toroxlu fas yéenee jaar fi nga jaarlu fas yéenee bàyyi fa nga bàyyilu su fekkee lii am to ak am mer la moo nu mere noo ngi lay jégalu ñun ñëpp di ñaan nga jéggal ñu jële fi feebar bi dàq ko balaa koor gee sori yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi su fekkee maa génn sama kër nii laay def masque sol ko sole ko ci nopp bi defar ko ci bii yëkkati ba mu baax ma door a génn su may ñëwaat it mu ba ci biir kër gi su fekkee mënu ma ko ñàkk tekkit ma tekki nopp bi ndànk tekki nopp bi waaye nag dem ci nit ñi ma masque moom du ko def